les piroguiers n'ont pas de poisson amuñu jën est-ce que xam nga ne yaboy sax amatul senegal le poisson coûte cher. yaboy naa wax waxuma la sa yaboy moom nañu woy les sardinelles xaw ma démb laa doon waxtaan ak docteur Sogui Diouf man moo ma formé ci affaire pêche c'est l'un des premiers vétos sénégalais formés dans la pêche mu dama ko expliquer moom sax alors donc Macky Sall moo signé ay contrat du ay sax ay contrat parce que accord de pêche mu ngi ko signé ak l'Union européenne dafa war a ñëw assemblée ñëwul mais bateau chinois yi yu fi nekk dégg naa sax Taïwan mi ngi fi russe coréen ces bateaux usines tout le poisson avec des filets yo xam ne du ñu bàyyi dara mais yow dafa war a dakk man je suis président je supprime j'arrête ça immédiatement et je suspends les accords de pêche. avec est-ce votre responsabilité aussi de de l'espoir dans le cœur de ces. oui on la on ramène oui de leur dire que ce n'est pas une solution. moi je suis avec les ici à Terre-Oulaye ngeen ci profito di ko politiquer et pendant ce temps-là. la man man ragal naa ne fii ak 10 ans si ça continue la population sénégalaise va bi yéeyéer dootuñu dese kenn. non góobamoo ne dinañ toll foofu projection yi wanewu ko. que euh, bon Afrique de l'Ouest Sénégal c'est 25 millions d'habitants on va les faire hein. sa ça c'est clair c'est pas ça. gis nga xale yi dem. dañuy dem mën nañ dem mais yëf yi na change xam nga wax nga ne ñu ngi ci célébré yoon fa nga commencé woon en 2024 man président de la république accord de pêche dama leen di arrêté supprimer leen ñu comme kenn du fi jël yaboo yi ki qui fait que nos piroguiers là dellu si ci lu ñu mën moom mooy dem nappi ci. loolu fan la ñuy tàmbalee mbir bi ñaareel bi loolu ngeen di bañ a dégg parce que ay yaafus lañu c'est plus facile d'importer que de produire localement. ici on va avoir des usines bu ci mujj mooy le le kii la Sonacos quand on va supprimer les usines de la Sonacos pour vendre le foncier nit xalaat na loolu fii ci Sénégal mais quand même de courage patriotique. les paysans yi léegi euh, ils préfèrent vendre leur. on subventionne les engrais. on subventionne les arachides au ak ak Ils préfèrent vendre leur leur D'ailleurs, on n'a pas c'est pas vrai. Si. C'est faux. Si, mais attends, on leur a le micro. On, on leur a donné avez, le micro, il faut on faire a une été. enquête exhaustive. Bu bu chinois bi ñëwee proposé 250. L'État di di jëlee à 125. Mais le paysan intérim la xool. C'est l'État qui doit peut-être structurer ba nga xam ne dina encourager paysan bi. Déglu ma xam nga loolu teguñ ko fenn. Xam nga à un moment donné amoon ba ñu woon Assemblée nationale di def taxe ñoo defendre na ko ma ne ko yoo xamul foo jàng économie ñëpp nag nekk ci ginnaawam di ko tàccu ah, voilà c'est ça parce que monsieur et cetera mais écoute yow ngay subventionné say engrais semence yi nga defar leen subventionné leen jox ko paysan bu mu béy nga jox ko chinois bi donc subventionné chinois ngay subventionné. waaw. mais ouais. sera en économie à l'université pour comprendre ça loolu la Amadou Ba def ak waa Benno Bokk Yaakaar Macky Sall circonstances yooyu ngay waxee loolu enfin quand même lu tax mënuñu ñëw Sénégal organiser wu mës nañ koo def et ça a marché quand il y a eu des de où on a exporté de l'huile d'arachide et gagné de l'argent dans ce pays sous Babacar Ba hmm, yàgg na de yàgg na mais c'est <laughs> possible donc on, donc on sait faire ça mën nañ ko def ay nit ku ñuul ñoo ko def ay sénégalais ñoo ko def donc béy gerte bi fii ñu dugal ko ci usines yi def huile d'arachide moo gën sax pour suñu santé